takk der yu Sénégal nag ci opération yoo xam ne dañ ko doon amal waa police lëkkaloo ceeg waa gendarmerie teg nañ loxo lu toll ci deux mille cinq cent cinquante deux ci ñoo xam ne daal dañ doon def loo xam ne jaaduwul ñu ne yooyu opération nag ñu ngi ko amal ci Dakar ci Thiès ak ca Diourbel opération yooyu nag li tax ñu amal ko sax ngir xeex li nga xam ne moom la ñuy woowee grand banditisme gannaaw bi nga xamee ne nag fan yee ñu weesu lii di pôle urbain bu Diamniadio daa am ab ay def ko ñaa def kon yu ngànnaay woon def ko ab attaque wante itam Auchan bu Zac Mbao bi nga xam ne dañ ko attaqué woon. njiitu réew mi Macky Sall démb nag euh, mook Karim Wade ñoo nekkaloo woon fële ca euh, stade Al Toumama bu Doha jamono jooju nga xam ne Sénégal mu ngi doon. Euh, kon daje ki nga xam ne moom mooy Pays-Bas muy match boo xam ne sax ko ñun dañ koo mujjee ñàkk euh, ci 2-0 ñu ne nag euh, suñu naataango yi waa source A ñu ne nag kii di Karim Wade moom daal def dafa doon def lépp ngir bañ a dajeek ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité sénégalais yi rawatina. kii di président Macky Sall kon mu ne bugguloon a dajeek ñoom moom moomul sax Karim Wade ñu ñuy xamal ne kon bokk na ci comité d'organisation bu boobule mondial ñu ne nag bañ a dajeek autorité sénégalais yi sax moo taxoon ba mu dem jaxasoog ñi nga xam ne ñoom ñooy supporter sénégalais ya fa nekk xibaar boo xam ne waa Sénégal ñoo ko joxe ñu ne nag euh, service euh, renseignement yu Sénégal dafa am daal ñaar ca ñoom ñoo xam ne dañoo réer mër kenn gisu leen ñu ne nag euh, vendredi ba léegi kon muy muy ñaari agent kon yu service renseignement bu Sénégal yoo xam ne daal fi nekk nii kon ñu ngi leen di seet dañoo réer euh, gisu ñu leen ñu ne nag ñu ngi mujjee am ci ñoom ay xibaar ajjuma ci daal après midi bi kon ba mu jotee mu sukkandiku kon ci ay xibaar yoo xam ne sax ay sources judiciaires ñoom ñoo ko jox suñuy naataangoo yu SeneNews xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy ci réewu Mali foofa nag euh, ña jiite réew ma fi mu nekk nii muy takk der dañoo jël dogal nag ne bépp activité daal boo xam ne ay ONG français ñoo koy financé dañ koy dakkal foofale ca réew ma euh, Mali ci ab communiqué boo xam ne nag euh, amal nañ ko ci la ngi xam ne kon loolu ñu ne loolu nag bu weesoo sax activité yoo xam ne kon ONG ay ONG yu France ñoom ñoo koy financé dañ koy dakkal wante itam euh, beneen activité boo xam ne sax euh, dafa am sax kon euh, yeneeni kuréel yu fa nekk sax te li nga xam ne kon dañuy jot ay financement ci France ñoom sax activité yoo xam ne it dañ koy amal foofu dinañ ko aaye kon foofule ca Mali ñu ne nag li nga xam ne moom mooy dogal boobu effet immédiat la maanaam bañ ko waxee rek ca lañ koy jëfee xibaaru bitim réew dañ koy tàmbaleeg Indonésie foofu nag ab séisme moo fa am euh, muy suuf su yëngu euh, ba tax nag euh, ñu ne lu toll ci deux cent cinquante deux personnes ñàkk fa seen bakkan mu ngi am nag fa ñuy wax île banaan bi ñu naan Java ñu ne nag lu toll it ci trois cent personnes am nañ ca ay gaañu gaañu trente et un personnes réer nañ kenn gisu leen ba léegi séisme séisme boobu kon. nga xam ne sax euh, ñu ne magnitude ba mu ngi toll ki cinq virgule six ñu ne nag tax na ba deux mille habitants am nañ ay yàqu-yàqu maanaam deux mille daal ci ay euh, nit am nañ ay bagages yu ñu yàqule wante itam lu toll ci treize mille dañ leen sax euh, yóbbu ngir rawale leen beneen xibaar bitim réew ba léegi bu tiis bu xew fa nga xam ne moom mooy Indonésie ba léegi ñu ne nag foofu ci ab stade boo xam ne nag ab match football moo fa amoon daal ba mu tasee ñi nga xam ne ñooy supporters ya daw euh, dugg ca stade ba kon ba tax mu am fa ab buuxante bu métti ñu ne toll ci cent vingt cinq personnes kon ñàkk fa seen bakkan mbir mi mu ngi am samedi xibaar bi nag euh, ñi nga xam ne ñoo ko xamle ñoom ñooy autorité yu gouvernement kon euh, ñi nga xam ne ñooy waa gouvernement bu Indonésie ñoo ko xamle démb ci dimanche bi la ñu xamle kon bile xibaar bu ñu sukkandikoo kon suñuy naataango yu RFI dañ koy jeexal xibaar sport démb nag comme ni ngeen ko xamee Sénégal euh, dañ ko dóor 2-0 ki ko dóor di Pays-Bas euh, ci loo xam ne sax mooy seen match bu njëkk ci coupe du monde bu 2022 kon 2-0 euh, lañ la dóor wante nag bu weetoo def bu weesoo defet boobu dañoo amaat benn nu ko njàqare muy nag suñu ñaari joueur latéral gauche bi di Abdou Diallo ak nag milieu de terrain Cheikhou Kouyaté ñoom dañoo amee ay gaañu gaañu ba loolu sax moo tax euh, eggali ñu woon li nga xam ne kon moom mooy euh, match ba Aliou Cissé nag moom àdduna jëmale si yooyu lay gaañu gaañu mu ne nag Abdou Diallo problème musculaire la am bu dee Cheikhou Kouyaté nag euh, dafa am gaañu gaañu ci cheville bi. wante nag yaakaar na ne du lu garaaw wante nag nee na bésub tey bi daal mardi bi ci lañ cay gën a am lu leer loolu la ñuy loolu tey ci xibaaram seen teewlu di leen jox dig daje ëllëg jaa ngeen